affaire Sonko. on lui bon on nourrit beaucoup de respect envers lui bien sûr. mais mhm. dafa bëri manipulation. dafa a objectif ba xam nga moom léppam. naa ñu ngi a objectif ba sonn mais non xam nga lu ko jeex. Sonko xam naa xale yaa ngi saaga. xam nga. <laughs> <laughs> ndeysaan man man sama sama nature bëgguma nit ku nekk si njàqare sax. waaw mais mais que moom. mais Sonko dafa neexoon. xam nga bi nga ko wéyee mu jël loxo yi boot ko nii. waaw waaw pour pour wane dañ caa mën a tey. waaw affaire boobu moo déclenché événement yi xeex yi. waaw dëgg la. lii tamit peut-être li mu ci jublu rek mooy ni ñu def soulèvement populaire. Mm-hmm. waaw waaw parce que comme comme comme comme booyee nee nañu. waaw euh, Sénégal du ñu xeex. waaw léegi léegi ñu bëgg na toucher la de sensible. waaw waaw wan ne kii président la pour gars yi jóg. man man daal. léegi dafa am benn benn image ci Sonko bu may fàttali benn archive euh, émission opinion la ci Walfadjri mhm. mu ne nee na dafa am kilifa gu ko ne mais kilifa googu nag moo ko xaw a tuuti. Mhm. Macky Sall mi. il faut nga il faut mu def dictateur sén dictature Sénégal moo ko day def dictateur Sénégal dictature Sénégal doo ko am jàmm. Mhm. moom nag très dafa jàpp ne Macky dictature la et que kii. fa xam. il faut nga def comme ni ñu def Samuel Doe. xam wax na ko sax. <laughs> waaw loolu laa wax rek. mooy xam nañ daan kii. dictateur deewu kaña lay dee. Mm. <laughs> loolu la ñuy wax comme Kadhafi yàlla ko yàlla yërëm mais souvent dictateur. Mm-hmm. sarab isra ak ñëpp. waaw mooy ci deewu kaña lay dee quoi dictateur ci pax lañ koy kii. xëy na moom genre image yooyu la amoon mu jàpp ne affaire du urne mais arme la. waaw nag loolu parfois mën na la tromper. Mm-hmm. parce que ñun amuñu culture boobu de. waaw man damay fàttaliku dañuy toog ay année 2008. ñu naan Ablaye Wade nii këtti këtti bu ñu eggee ca 2012 mooy non le Sénégal ne sera jamais le Congo de Mobutu sous Ablaye Wade duñu mës a egg foofu Boucheri fii parce que ñu ko quoi ñun xamuñu ko te yàlla bindeewuñu noonu yàlla bindeewuñu noonu ah, xam nga Samuel Doe mi wax Sonko bon peut-être xam na ko quoi inspecteur impôt la il est cultivé Samuel Doe kan la rey kan la coup d'état William Tolbert mais rey bu ñaaw la ko rey waaw ah. Senghor ak Houphouët-Boigny mosuñu bëgg a nuyu Willy Samuel Doe. ndax rey gu ñaaw bu ñu rey. Ah. William Tolbert bu atroce. Samuel Doe que ba c'était mis à dos tous les chefs d'État. tous les chefs d'État il a eu un règne quand ni ñu reyee. dañoo jël ministre yi wékk leen fenn. jarul sax di nettali pour ne pas choquer les gens. archive yaa ngi xam nga egg dimension boobu noonu. waaw léegi yow nga koy jël. Euh, référence waaw ci contexte boobu.

parce que man dama jàpp ne li ñu ko jàppee dëgërut. Mm, xam nga dem ba am ay sët ñu lay jàpp noonu di yóbbu. non xam nga loolu. toroxal la quoi dañuy waxante dëgg rek. ak surtout man dafa métti ak ko jàppee tamit. waaw man dafa métti et que xam nga dafa metti man. Mm-hmm. il faut ma génn foofu sama objectivité. Mm-hmm. dama ko fekkee jaay doole la et na boobu ay xeetu jaay doole waa APR yi. Mm-hmm. loolu lañ fi def. lu fi def. def nañ nekk lañ fi def waa APR yi. waaw looloo tax nag ndeysaan ñu bëri sax ñuy topp Sonko dañoo jàpp ne méthode yi Sonko am rek moo fi mën a jëlee Macky mm. mais man jàpp naa tam Macky la mm. xam nga man xaw ma Macky mais xam naa ay grand yu mu xam quoi ñu muy ànd ak mm. boo gisee ñooñu nu ñu mel rek ay sénégalais lañ comme ñëpp ah ñoo xam ne ñu cool ils ne sont pas violents ma ne ñii de xam naa Macky bu ñu doon mm-hmm. wax ak moom dëgg bu ñu waxantee dëgg rek nag damaa mos dugg ci kër benn kilifa opposition bi bu mag a mag a mag Sénégal mu ne mais yéen journalistes yi di ngeen di waxee Macky Macky ñun ñoo ko yar Macky melul noonu nag vous voyez mm-hmm. donc Abdoulaye Wade ce qu'il a compris mm-hmm. ak Khalifa Sall ak keneen mm-hmm. mu privilégier les canaux di dialogue léegi lii mu dugg nii euh, man xaw ma lu mu ci jublu ba tey waaw man mii waaw man dafa ma jaaxal parce que dégg naa keroog Babacar Niang nee na dañ ko invité suñu plateau barki démb nee na docteur Babacar Niang waaw docteur Babacar Niang nee na boo defee grève de la faim ba egg benn niveau bi sa xel parce que da ngay taxal ko sa xel ni ku tàqal koo xelam. ku ko assisté wul da ngaa bañ a assister personne en danger. kon donc foofu bu fa eggee dégg naa ni ku grève de faim médecin bi dafa am obligation jox la nga lekk. waaw parce que sinon tamit mais mais dañu fàtte tamit ne euh, man dégg naa Babacar Niang ko mais dañu fàtte aussi ne euh, am na foo xam ne boo fa tolloo euh, ndax lii nii nekkatul. grève waaw ay sëñ dëgg nag. Hmm. fii Sénégal sax grève de faim yi ñuy wax. Ah, xool fii nii gis nga xool 15 am na benn ah. benn leader opposition bi am na ci seen kii bi ñi ngay gis nii ci yeewi gis nga ñi ngay gis nii ci hmm. bi ñu nekk étudiant hmm. am na ci koo xam boobu laa koy njëkk a xam hmm. mu grève de la faim mais keroog genre kii ñoo fa nekkoon pavillon kii pavillon M ci suuf université ko <laughs> xool parce que man man xam nga parce que dafa benn boy bu daa <laughs> ànd xam nga man dirigeant grève laa après booy topp ci man ñëw bu ñu ñëwee université man université militaire wu booy bi nekk booyam ñiy ànd mais seet si booy bi moom xàmmeewu ma mais xam naa ko ci leer opposition bi la tey yeewi la bokk mhm. keroog kanet yee fi ñëw affaire yi kii moo fa ñëw ndox bi di xam nga fii gars yi mu dóor rapidement ay xeetu dóor la rek quoi ay genn saay parfois mais ñu xam nga xam nga pour communication rek waaw mais xam nga grève de la faim euh, euh, doo lekk doo naan doo doo Euh, comme ni si Papa Aliou yokkoon mais xam nga yooyu euh, fii Sénégal la daal. non fii Sénégal la. waaw fii Sénégal c'est-à-dire ñun euh, foofu tamit état bi tamit parce que état bi mooy li nga li bu ñu bëggee nekk fii di foyee suñu xel naan dañuy gërëm daal affaire yooyu mais nañ leen kii jox leen interveneuse direct. piti da ngeen di piqué ñun liggéey ba suur loolu ngay def bu ñu geex affaire jeex quoi parce que bu ñu sonal tamit quoi li ngeen di sonal xam nga dañuy wax seen dëgg tubaab tamit Sénégal. dañuy wax seen dëgg dañoo sonn. non xam nga dossier dañuy dañoo sonn ñun taluñu. dañoo toll nga dëgg nga Sonko ndeysaan a mais dafa am mm. mm. day wax yoo xam ne daf may jaaxal su ma ko déggee maan ba démb naan affaire Adji Sarr